النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإسلام الحاج إبراهيم نياس أبي إبراهيم لا هلاله هلال وبال ناظرين جماله أهلا بسحر مولدي ذكرنا مولدي إلى ونحن في استعداد إلى سحاب كأكل كابل مدينة سعد الرحامة كما أننا سحبنا إلى كولة وأردنا أن ننصرف إلى مدينة باي كابل مدينة ثالث لسعد الرحامة والمنافسة التامة لنا العامة وأردنا أن نفعلها كما وجب ولنا خيارات وإن شاء الله معنا جماعة كافية ومعنا بناء ونتمنى من جميع الإخوة من الأحباب والأحبة الدعاء لأن نصل بالسلام درجة مولاي برحمة برحمة هكذا هذه كلمات أردنا إلقاءها

xam nañu bañé xamañu ci ci yow islam ah tek nañu ci yoon bu baaxa baax mëno ji taal bi ci abdoulaye ibrahim bo xamanteni do ko jité rek nga xamné ci cheikh aziz ci abdoulaye ibrahim ndax bëdd ala bay yow mom kenn du la laaj lo def ci kër di préparer li nga xamné moy gammo joggé

xamante ne ñun moom lañu yaakaar foofu la jógee foofu la jàngee am ci yàlla fa ko am na ñoo sax léegi dañoo commencé bàyyi ba gàmmuwaat di xaar gàmmuwaat pour dem ànd ak sëriñ ndaxte nit ku ne fi sëriñ di amee ndam nga bëgg ba si sëriñ bi amee lépp mu moo tax tam mois bi jotee da ngay gis ni xale yi di sawaree da ngay gis ni sëriñ bi di sawaree da ngay gis képp koo xamante ne muy ànd ak barxaama abdu barxaama nu muy sawaree ndaxte buñ fay demee kontante lañ fay dem buñ fay dem ak yar lañ fay deme buñ fay dem ak sant yàlla lañ fay demee moo tax lépp lu ñu am rek ci gàmmuwaat bi lañ koy def te ci ngi bu baax am na loo xam ne am naa sañ-sañu laaj la lan mooy secret euh, ki nga xam ne mooy barxa bay Barham Diouf bu gàmmu bu ñëwee wala gàmmuwaat bi ñëwee ay affaire am di gën a waaw secret du lenn moom moo ñu ko doon wax mu ne sama papa dafa ma waxoon ne lëpp loo am jox ko baay waaye lépp loo soxla laaj ko baay moom ci diggante boobu la ne lépp lu mu am xalaatu koo denc baay ñis la koy jox moo tax lépp lu mu soxla rek ci ay bisam baay ñis moo ko koy jox delloowaat loolu rek du dara loolu rek may bóoti am nañ mbégte bu baax a baax ma daan ñu ñëw fekkal keur bay Barham euh ngeen joggé ci gamu du dugg ci gàmmuwaat naka ngeen di préparer li nga xamne moy mooy gàmmuwaat bi yéen jigéen ñi yëkëti micro bi yëkëti yëkkati micro préparer ba la ñu gàmmal loolu la ñu Gracias. Habib Kanté ñu ñëw Kër Baye Barham bi fekk la fi yow yaakaar naa ci sécurité nga bokk euh, yéen sécurité bi naka nga xam ne mooy gàmmu gàmmu ah, euh, li nga xam ne jigéen ñu tànn ay quelques jigéen boole ci li nga xam ne mooy euh, sécurité bi lan la def ci yéen en tant parce que dama toog ba ñu téléphone parce que tey jii góor lu mu nekk ñu boole ci jàmbaar parce que góor ci lu mu nekk ko moo boole damaa kontaan vraiment. lan ngay tàggatoo lan ngay xam ne mooy sa morom ah, bu baax rek jàpp fayda bi fayda bi moom ku ko bàyyi moom dañ góorgóorlu parce que tey góor lu mu góorgóorlu jigéen naa góorgóorlu bu fekk foofu noonu góorgóorlu bu baax a baax daal topp bàyyi ba xam kontaan naa si mii ñu ñëw fekk la fi nga xam ne mooy kër baay Barham Diouf boobu ba léegi ñu léegi si gàmmu bi ak gàmmu waat bi ñu jëm naka ngeen koy préparé gàmmu bi ñu koy préparé rek préparé ba am jom ndax ay taal bi Mawlana Cheikh Ibrahima ne foog ñu dem Kaffrine def mi ñu doon def rek sa at waaj ko rek def rek yaa ma gën a xam waaw lan mooy seen secret ñu ngi yéen ñi nga xam ne yéen ay taalibe Barham euh, bu ñu gis ne chaque année ko ah, te loo ci def cent pour cent beneen day gën a yokk def ci trois moo mel noonu mooy bi loo ci def xam ne ñooy sa moroom jigéen jëm ci gàmmuwaat bi lan nga leen di wax ñu waaj bu ko doon waajee chaque jour rek nekk si waajale nekk ci togg yeeg liggéey bi yëpp ni ñuy def sax at ndax moom ñun moom waa waañ lañ waaw yaa gën a xam waaw yéen waa waañ bi maa ngi xaar suba parce que naa ne daaw moom ala daaw mi na macha allah tubaarkàlla macha yaakaar naa ne yéen moom seen i jéego ci kanam la jëm waaw loolu am na moom hmm. kon mën nañ cee mun nga xaar suba moom du dàq loolu mooy ñëwaat incha allah parce moom xalaat doom chaque jour day gën a yokk at bi nekk leneen lu muy leneen xaar lu muy àndal. kon nañ xaar surprise yi suba incha allah nañ xaar suba yomb. sant bi naka la. fay naa leen man ah, ci kër gi nga bokk. waaw yaakaar naa bu ñu nee Adou Baye Diouf rek euh, ci fondement kër ga bokk léegi ñu ñoo ci di dem préparé waat gàmmuwaat bi ci toolu ci convoi bi nii naka ngeen di préparé li nga xam ne mooy gàmmuwaat bi. Kamu waat bi nag comme ni Kamu préparé gàmmu rek lañ koy préparé à l'avance la ñuy def nga buy ñëw ñu programme xool li ñuy dund li nga xamante ne mooy dépense bi dañuy calculer lépp daal ndax dañuy cotiser lépp préparé lépp ci période gàmmu bi kon gàmmu waat bi aussi noonu lañ koy waajale ndax gis nga action yi ni mu demee noonu béy yi xar yi lépp ceeb beeg diw yi tout lépp pare ko yóbbu nga xam ne bu ñu demee duñ soxla dara macha allah ñun dañuy préparé suñu bopp ba nga xamante ne bu déplacement ndax ki ñuy ànd moom moo mel noonu dafa organiser boppam te ñun tamit dañu topp si ginnaawam rek di jàpp organiser ba mu baax waaw noonu daal dañ koy defee léegi ko defee coono du ci am am benn jafe-jafe ci lépp a yem daal ñu moom li mu daal moom góorgóorlu ndax moom gis ngeen moom dara muy dara ki mu bëgg mooy koy góorgóorlu sa bopp surtout gëm seen bopp aussi ndax nit ki nag boo gëmee sa bopp di nga xam fi ngay teg sa taat di nga xam li bëgg ndax moom toujours ñu ñuy ñaax gën a ñaaxee nag jàpp suñu li nga xamante ni loolu moo ñu war ñu di ko nit ki daal boo góorgóorlu di nga xam fi ngay teg sa taat tey laaj conseil aussi loolu bokk na ci loo xamante ne dina tax nit ki jëm kanam mhm. boo demee si ki nga la moom moo la mën nga mhm. ya, ya, di ko ya karena ah yaakaar man de ba waxtu bi damay laaj conseil kon nag buñ nangoon ñun tam ñu conseil parce que dañuy laaj conseil conseil ci yàlla te ku ko déglu ah nit ku baax la de dëgg nit ku baax la sama nitu démb la ndeysaan am nañ mbégte ci yow bu baax baax yaa sant yàlla merci beaucoup alhamdulilah ñu leen leen dem ñaan dem ko faamu ko dégg ci yaa bu euh ñu gis ne yeen bu diri ngeen jóge lan moo leen boole bay barham bu ngeen ñëw fi préparé nga xam ne baran bay barham ko cheikh diri kana ka mo inshallah ni jaha hande ko mo watam ko hunde amen mo parce que cheikh mamen bayi lan ni bara men am préparé na fay wi tan ko chaque année inshallah la sifaji ke solo je on jaram istal

ndigo gara ngon bino sob men serewe eh, sob men falwe sob men fulane we en tant que sere kaga nama fika nama fiang yeg yeg fum jegono kaga eh ma eh bay eh. serero oh. ya, ya. olo ko fulane hop ken iwan ya ke bago mun na iwan ko den de léegi uh, lan mooy sa teewaay fi nga xam ne kër Baye Barham Guisse waaw Barham Allah alhamdulillah Baye Barham Guisse parce que kangu ngam ko neɗɗo mo gananduma hannde kala almuri Mawlana Cheikh Ibrahim minen komi ha ɓawa min immi ha fouta gaari ha saint louis mboɗo janggo bay bara hamdi radiallahu anhu waɗi emin ligga so min jooɗi emin liggal neɗɗo mo gannduma goto fof mo foti andudemo jërëjëfe Baye Bara jërëjëf ci Baye Bara di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ndaxte tey lépp lu ñu mën ci am yàlla am ndax féetee nañu képp lu nga ànd ak moom wallaahi am na tànk gi Masya Allah, dah. Alhamdulillah, Allah. anak-anak rek. Ya, betul. loolu sant yàlla la rek parce que initiative boo xamante ne nii dañ koo jël ren parce que depuis daaw jóge ñu gis que ne dama ñëw fekk fii nit ñi feebar léegi nag di fu nit ñi bu ñu feebaraan moom ma naan jël xaalisam di ma di ma jox naa ma naa jënd ordonnance di daaw tamit ma ñëw mu rafetwaat la même chose xam na ne que ne gàmm gi moom jël di ko ma ñu jël initiative euh, xalaat ne mën nañ fatal ñu indi ay garab ko nga dara mu koy métti bu ñëwee ñu mën koo faj gratuitement ci lu ñu am li initiative bi loolu la bu question yàlla barkeel faj ba nga xamante ne lépp lépp amee ak lu mu tar tar tar tar buñ ko joxee barab bu wér ci doole maam say baay imaamu day rek comme li ñuy wax rek pël moom comme comme bàyyi di wax mu naa la pël de dafa rëy bu demee ba séeréer di jiite pël nga xam ne daay kese moo ko ndax dafay dafa rëy rëyaay boo xamante ne du nangu keneen jiite ko donc moom lu mu def ñu yàlla rek rek moo ko mën ndaxte am yàlla moom ndax ku xam Awa Samb démb bëgg démb xam ko tey am ne wallaahi yokkute am na te alhamdulilah moom laa koy jagleel ndax du ci woon moom barke suñu mu ñaaw féete nañu fépp bàyyi bàyyi bu dee fu mu ko fu mu ko toog gàncax sa tool sa bu doon yàlla bu ko doon may benn da koy naan ne ko yóbbu bu diiri te pourtant de fii la dëkk ñun xam ñu koy ñaana yàlla rek moom na am fulaay bu taxaw incha allah ñun suñu yéene ci moom yàlla yeggale loolee moom fii la am. lan ngay tàggatoo. baraam Abdou Baraam di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñu dem ci jàmm yéegi ci jàmm waa ci jàmm yàlla mënuñu suñu càpp yàlla mën tamit ñu fi génnewaat ay ati ati at ci doole maam si am yàlla ñu yàlla nangu lépp lépp ñu fi waay ñaan dama fi waay mbébét yàlla ko yàlla defal ci barke suñu ci jaar ci doole maam si maa Massamba nuyu nañ la ziar la béggee la jox la wàcc wàccuwaay bi di am mbégte ci yow bu baax a baax di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Cheikh yàlla bu baax di waaw tey ñu ñëw fekk la ngay doom ci biir kër gi doo taalib ci biir kër gi mais doom nga fi ñu gis ne maanaam convoi bi euh, jóg na. ñu gis ne yaa ngi léemu oto yi lan nga ci doon bind ak lan ban sabab nga ci am boy boy def lo sabab biñ ci am rek mooy nekk ñëpp am jàmm oto alalu seytaane la tali tamit alalu seytaane la ñaari seytaane buñ dajee force nga léemu oto yi force nga ñaanal ne teg tamit kii ma kay ñaanal nekk koo xam ne sama nijaay la di sama rakk yaay lii daaw

boobu ni ñu koy préparé rek moo ne comme d'habitude comme ni ñu àndee woon ak peut-être dem yóbbu ko mu yegg Medina Baye Cheikh Ibrahima àndaat ak moom yóbbu ko ba mu yegg Medina Baye Abdou Barhama sécurité bi moom liñ leen ci waxoon rek lañ leen di waxaat dañuy sécurité sëriñ bi sécurité ñi ànd ak sëriñ bi ñun loolu mooy suñu mission ay mission malaaka lañ yor amuñ noppalu duñ sonn tàyyi tout le temps rek sëriñ bi su bëggee rek ñun lam bëgg loolu la ñuy def moo tax tamit noonu lañ préparé tamit ànd ak convoi bi sécuriser leen ba dugg biir Kaolack ànd ak ku tedd ki sécuriser ko dugg biir biir biir Medina Baye Kaffrine loolu moo nekk suñu mission te ci loolu la ñuy dox di la wax tamit ne gàmm gi dina nekk gàmm goo xam ne gàmm lay doon daan nañ gàmmu muy neex waaye ren moo ci rawati parce que dañoo ñëw ak yeneen i bagage kon incha allah ñun ñëpp xaar ñu kaflin dinañ xam ne gànjaay Goudiri Gambo xaalam yi ñëpp ñëw nañ te suñu yegg see rek nañ xam ne ñu ñëw borom gàmmu gi incha allah mhm. rek dara dara rek lu mooy ànd ak ku jara àndal parce que boo àndee kilifa goo xamante ni bu la laajee mille moom joxe na junne kon yaakaar naa loolu pour mu dem dafay yomb mhm. suñ sekkare loolu la tamit suñ xol yi dañoo booloo jël benn mbir rek xitmaal ko moo nekk ñun tedd gi na am jàmm lépp lu mu bëgg rek ñu ñoo rek ñun ñoo ànd ceeg moom loolu mooy suñu secret luñ liggéey jox ko moom soxlaa luñu dara waaye ñun ñoo koy dimbale suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm dañuy dajale jox ko fekk moom mu ngi denc ay millions am lii yëpp moom la ñun defuñ ci dara lépp loo fi gis rek tedd gi moo ko def parce que ñun amuñ ñenn ñi ay élève lañ ñenn ñi ay xale lañ ñenn ñi seen liggéey sax dëgëragul waaye nag barxaama ak bu barxaama jaral nañu ko ba lépp lu ñu am rek ñu def ko ci bésam bi ndaxte moom bés bii la am mu ngi dem siyaari ji sëriñam fa nga xamante ni fa la jàngee fa nga xamante ni fa la tarbiya fa nga xamante fa la tarxiya lépp lu mu am mbir Kaffrine la ko amee kon loolu moo tax lépp lu mu moo tamit dañ ci ànd ak moom rek incha allahu taala lan ngay tagu tàggatoo limay tagu tàggatoo mo nek ñaanal oto yi yegg ak jamm ñom buñu déparé ba yegg rek ku tedd ki top seen ginaaw inshallah taala ñu fekk leen Kaffrine kon loolu moo nekkoon tagu ñu ñi ñaanal ñëpp jamm képp ko xamante ya nga ñew ñëw yalla nga na jamm delu wat ci jamm yalla liñ fay wuti yalla ñu ko yalla nangu ci barke Cheikh ibrahima Barama barke Cheikh Ibrahima Fall barke ibrahima Abdou Barahama alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mhm. ci wa bi moom dañ koy def sax ak koy faral di def yóbbu ci jàmm di indi ci jàmm mhm. yàlla jàmm sax tentang kusubatai sambo tak usah kalau kesan lebih yang dia buat dia nak dia ini kita nyukai dia kalau dia kalau nga di len ñaax comme nak sa mbokk ma di len ñaan dank rek affaire yi dank rek yoon mo nañ con nañ ci yow alhamdulillah la ñëw wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk téléspectateur yi TV ñu ngi leen di ziar di leen ndokkee di amal ko ci ak contentement bu baax ak yéen seen TV mungkin kesalahan dan kesalahan jadi kamu ñoom ñoom ay disciple la ñoom yàlla nekk na la gën a tey jii la gën a la ci jaam yëpp ndax am ñu koy ziyaar ndax boo xamante ne jaam la pare pour liggéeyal sëriñ bi jàppale suñu sëriñ ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal sëriñ muy sang Cheikh Maham Diouf xam ne itteem bi yëpp mooy liggéeyal maanaam Cheikh Abdoulaye muy itteem bu moom lañu wax mu tax tey di baax maas mobilisé wu ñëpp incha allah parce que dem ne xam man lay fay bu baax di la buru bi buru funjal waaye fii si gànjaay moom yaa buri juuf lañ may woowee waaw ñu bu baax di la ziar waaw yaa buri ngay yaayu kër gi di yaayu njaboot gi ñu jógee ci gàmmu di jëm ci gàmmu waat naka ngeen di préparer li nga bi bu baax allah di ñaan may ñu dem ak gi allah nañ ko neex na trop oto yaa ngi nii xale yaa ngi nii dara manqué wut. njaboot gi nga xam ne jiite nga leen. waaw ah, njaboot bi moom macha allah njaboot bu yaru lañ njaboot bu neex a jiite lañ wax dëgg yàlla ñu baax baax nañ man naa ne sax ñoom ñoo ma jiite ndax ñoom ñoo yaru ñoo ma def yaay te man sax matuma yaay waaye ñu baax nañ li ma leen di wax daal moo ñu gën a góor fiñ teg seen tànk daal foofu la nañ ko fa teg rek lépp dina baax ak bàyyi wilaan ca kanam rek incha allah lan ngay tàggatoo waaw li may tàggoo mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwén yu bëri at bu ñëw rek di gën a neex macha allah jërëjëf am na lu ma ci bëggoon dolli yaa buri tey ñu gis ne manam yéenay soxnay sëñ bi te gis nañu saa ñuy ci kër da ngay di génn néeg yi ah bay génn seen i bay bàyyi gan ñu dugg ci biir néeg bi lan moo waral loolu waaw loolu boko gisé gisee lépp yaru sëriñ bi la ñun Cheikh Abdoulaye Wilane mo ñu yar te ñun non lañ gis muy dundé ak i soxnaam ak i taalubeem te Baye Baram ku ko xam xam ne mo Cheikh Abdou Barama li Cheikh Abdou Barama mer rek non la mel moo tax njabootam gi lépp ben la ñun ay taaluba lañ duñu ay soxna ñun ay taaluba lañ moo tax bu ñëwee rek ñun lépp lu ñu am rek pour defal leen ko ñu gën a kontaan rek ñun dañ koy def bu ñu amoon ëpp loo sax dañ leen koy defal parce que nag kiñ koy defal jar na ko te taalibe yi tamit jar nañ ko macha allah lépp daal si Abdou Barama. ndeysaan am nañ mbégte ci yow bu baax a baax. laaj te nga génn de tàggoo. lu la dal yaa la dal daal yaa ko teg sa bopp. boo dikkee lu ma la def it lu ma la wax na ko nangu. boo dikkee lu ma def wala lu mu la wax na nga ko nangu. toog leen liggéey moo ñu indi. nañ toog liggéey moo ñu andi. doxloowuma kenn. doxloowul kenn. siyaare jotee ñu siyaare ji. bu siyaare jotee ñu siyaare ji. waaye nekk ci dëkk bi di corom corom yi. waaye nekk ci dëkk bi di corom corom yi. liggéey bi def di di tardé. te liggéey bi des di tardé. ku ma ci laajte génn nga te tàggoo woo lu ma la def yaa tooñ sa bopp. ku mu ci laajte bu fekk génn nga te tàggu woo lu mu la def yaa ko def sa bopp. dëkk bi dëkkam ñaan yàlla la. kër gi kër ak li jaabara. lu fi waaye liggéey ñaan ko yàlla dana am. lu fi waaye liggéey ñaan ko yàlla dana am. jarul dem fenn. jarul dem fenn. liggéey leen. nañ liggéey. loolu laa leen sant. loolu la ñu sant. sant ma leen wëri corom corom. sant ñu wëri corom corom yi. loolu laa leen am lu ma Lola amon lim ñuy wax yalla ñu yalla nangul yalla ñu yalla nangul ñu fi ñaan ko yàlla nangu fi ñaan fi xidma yal ko barke Cheikh Barama Allahumma salli ala sayyidina ma ah, di sant yalla gërem yeneen tam di gëna gërem ci sëriñ di sëriñ di ko ñaan yalla bu def la góor ci barke waaw ah, te li yépp ñun ci ba ñu interroger ak ci xam ci yaataleen ci defar gi moo waral organisation bi yëpp am bañ toll fi loolu am tey lii bañ koy def tollu toll nii waaye ci organisation ci bëgg yàlla ak ci moo tax loolu mu toll nii tey kon lii yëpp ci liggéeyal Seydi Barham Diouf waaye liggéeyal Cheikh waaye aussi liggéeyal Baye Niass moo war moo war suñu ñu gis ne maanaam yeneen a ci préparation ndékki bi bi ñu xoolee fi ñu toll woon daaw. ak fi ñu toll woon am na yokkute. parce que gis naa ne li nga xam ne mooy gàtt yi am na yokku na xar yi yokku nañ. lakka nga may wax si loolu. waaw yokkute am na ci fépp ci fépp la am parce que li may wax daal mooy Sidi Barham Diouf képp ku ànd ak moom tànku kanam nga am waaye tànku amoo tànku ginnaaw bàyyi naa ma ko waxoon ne yëpp képp ku ànd ak yow doo torof te loolu saa ñu ngi koy gis ñii ni waxuma laaj bëy waaye ren daaw ñu ngi ànd woon ñetti oto rek ñu ngi ànd juróom benn oto loolu yëpp ko la kirit mooy yi nga xamante ne ànd na ñenn ren daaw ñu ngi tolloon fukki gàtt ak juróom ñett maanaam 18 ñu ngi toll ci 23 gàtt daaw ñu ci ñetti xaar ñu ñu ba 8 kon bu baax baax ci gërëm sëriñ bi ndax ci la ci la en tant que président li nga xam ne mooy ndekki li suba. Euh, gis nañ ne daaw am na organisation bu doy. Euh, ren lan lañ ci mën a xaar. ren yokkute comme ni ma la waxee rek. lépp dañ ko pare maanaam ni ñu ko préparé woon daaw dañ ko gën a préparé bu boobaa nit ñi satisfaction bu ñu amoon daaw dinañ gën a am satisfaction parce que lépp dañ ko gën a amélioré ci taxawaay yi ci organisation yi ci lekk yeeg ci ni ñu ko defaree lépp lañ ko amélioré ci lépp ci organisation li ma la ko waxee rek moom ko xam ndox moom ci tracé incha allah da nga am satisfaction kon suba nañ xaar ne incha allah dinañ gisaat beneen ndekki boo xamante ne ni dinañ xëm ñëpp parce que lépp préparé lañ ko incha allah ñu gisoon ci ay misfi mhm. misfi doy waar sax mhm. euh, misfi ak yooyu noonu est-ce que yooyu préparé mu ngi ci biir ñun amuñ tànku gannaaw tànku kanam la ñu parce que ki ñu àndal moo ñu wax démb rek ci ngeen di koy wax ne na man defar rek laa bañ ci sama kaw sama dina mhm. defar rek laa bañ képp ko ànd ak man ndam rek nga war di wut moo tax ñun fu ñu nekk rek ndam la ñuy wut ku ànd ak koo xam ne dafa bëgg ndam la yow foo foo mën a nekk a am ndam bon loolu moo waral ñun ñu topp ko ci loolu xamante ni suba incha allah lépp loo xamante amoon na fi daaw dina am incha allah. lan nga ci waaw day gën a bëri sax bu soobee yàlla. waaw lan nga si dolli loo xam ne si laajuma la ko. di gërëmaat di ko gërëmaat moom sëriñ bi. parce que li ma ko waxee début bi rek lii yàlla ak moom la ñun amuñu payam amuñu fayam benn benn benn yoon di nga taalibe amul lu dul sëriñam waaye sëriñ amul lu dul taalibe waaye ki ñu am dëgg dëgg na yàlla sëriñ la ci sëriñ sëriñ boo xamante ne nii lay teg ci yoon boo xamante ni mooy chaque jour da ngay gis yokkute ci yow dawul sëriñ bi utiliser taalibe ak taalibe da nga am sëriñ ma mel noonu nag yow sant yàlla moom dañuy wax toujours ne la nañu man képp koo xamante ne àndoon nga ak man man ñii du kenn ñii duñu ànd ak man ku nay du ànd ak man amul si du ànd ak man ku yàkkamti du ànd ak man sëriñ booba nga xamante ni saa su nekk mu lay yàlla yi mu lay won mbaax dala jëflante la jaamu yàlla yi jëflante bu baax ci loo bon sax fexeel nga wax Mau loo baax di lu mu bëgg ci ci kër ko ko may ci barke amin ya rabbi tàggatoo bi mooy doon lan tàggatoo bi ren nañu tikkee fukki ak fukki ñaar fukki gàtt ak ñaar déwéné dina gis ni ñoom mooy sax insha ci organisation ñu tag lu allah yi da 6 la ren mais 6 mini car la 3 4 4 ak benn oto 6 mini car la 3 4 4 lépp ci yokku dëgg nee naa bu déwéné insha allah ñun ki ñu ko wala xam xam su ne am ci ren 6 am 3 4 4 gis doon gis leneen ren benn de moo moo bu baax. kilifa gi nuyu naa la tur ak sant bi naka la. waaw euh, sang bi bu ñu xoolee ndékki yi nga xamoon moo fi amoon daaw leen ndékki yi ala dawme ñu gis na tey ren yi gàtt yi yokkal nañ la ko euh, ndugg mi gën na riis naka ngay préparé nga xam mooy euh, ndékki li suba. li ko waral mooy affaire dañ gën a yaatu chaque année di gën a yaatu loolu it daal mën nañu lëkkal lay baram bi am na ñun daal ay jaam la ñu liggéey rek yàlla def ñu def suñu association tournal daal ñu tournal di jël service voilà waaw ci biir loolu itam gàtt yi dañ koy mis wi lépp wala naka lañ koy def waaw bi yoon dañuy mis wi gàtt yi ñu gën a fàttali progressé incha allah ñu gën a taaral ak ñu gën a waaw ñu gis itam lu mel ni comme ay jus loolu naka lañ koy préparé. waaw day am trois différents jus day am euh, mojito bu ñuy defee incha allah dañuy defar tamit euh, jus de bisaab incha allah. dañuy defar tamit euh, jus de buy ak ay ràññ mooy ay canettes yoo xam ne dañ koy jënd tamit pour mix ko ci biir daal ñu gën a rafetal ñoom tamit incha allah ba pare rek mën nañ ne daaw lépp luñ defar dañoo dañoo defaat diwlin boobu lañ defaat dina am wax incha allah dina am ataaya dina am kénkiliba. comme ñu naan tuuti fële ko wax kénkiri ba te jàpp na liggéey parce que vraiment depuis deux mois ngi nii dañoo sonn trop nekk ci groupe bi ci whatsapp bi xam nga utilisé ñu bàyyi seen temps ak seen dëkk yëpp liggéey c'est pas évident yomb te ñëpp ay élèves lañu bàyyi lépp lu ñuy def daal pour bëgg a jommal affaire bi ko rafetal ñu gën a ñaanal rek incha allah lépp nga xam ne suñu matériel ñoo koy jëlee suñu bopp jëlee suñu bopp sax nga xam ne duñu luwee dara te gars yi gën ñoo jàppale gën a jàppale tamit sëriñ bi parce que affaire yi dafa xaw a métti dafa métti trop. ñu ko gën a jàppale dafa gën a. problème mooy hygiène bi rek mooy du toog koy toog a set am hygiène tamit très important loolu la ko xam ne la ñu a tax ñu wax fii a rafetlu. li waraan bi gën yàggal ci rek gën naa su yàggee ci rek ñu tamit dañu daal lañ ko mën a ñaanal yàlla na yàlla may ñu am rek gën naa su amee jàmm tamit dañuy am jàmm dégg nga ñun ñaanal bu baax ñu nekk ci biir fii ay xale yi ay amoon naa ne deux mois yi ñu ñoo nekk di liggéey xam nga ci téléphone lañ nekk ay vocal whatsapp ku ne lañ doon dugg génn ba yàlla def bés bi ñëw ak jàmm ak salaam ñu ñaanal lekk ñu ñaanal suñu sëriñ tam mu yàgg fi di liggéey pour gën a gën a rafetal ak gën koo taaral rek xam ne liggéey bi tam ñun ñëpp ñun Baye Barham jox ñu dara te duñ ci suñu bopp parce que amuñu tudd moom nañ ñaanal suñu groupe bi rek gën a jàppal incha allah liggéey bi a dox très bien loolu organisation la parce que dañuy organiser affaire yi ku ne rek ak fuñ la teg rek nga nekk boo ko nekkee tamit yow yaay suñu biir ñoom am na ñoo xam ne ci mission la ñu nekk am na xam dañuy nekk ci fruits yi am na ñoo nekk ci jus yi am na xam nekk ci wax bi dañ koy partagé yàlla def na ko chaque année loolu la ñuy def ba pare ñu ñooy def suñu hôtesse ñu roolu ko pour mu gën a taal dina rafet daal moo tax ma ne lépp lu mën a ñaaral groupe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi rek ñoo leen ñaar dañ ci sonn pour vraiment dañu jël seen alal bi def ko ci def pour taaral affaire yi waaw ñu am mbégte ci yow bu baax a baax lan ngay tàggatoo waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu man Cheikh Tidiane Diop laa tudd maa ngi dëkk Fouta waaw ñu gën la bàyyi Fouta eh, teew nañ fi nag ci suñu ndigalal sëriñ muy suñ nit ci yàlla Cheikh Abdourahmane bi la moom dafa amul jot moo tax mu yebal ñu ñëw maa ngi ànd ak ca al muqaddam Cheikh Mahmoud Sarr maa ngi ànd ak Yàlla Sane Ndiaye kii moo nekk Ndulum dëkk bu ñuy wax ak juróom ci Fuuta kii moo nekk dëkk bu ñuy wax liw Cheikh Alassane Ndiaye maa ngi ànd ak Cheikh Amadou Ndaw Male ak Baye Tamsir Diop mooy président daayira bu Adama man dëkk bi ma nekk caaram lañ koy wax bi nga présenté ba pare présenté ñi nga àndal ñu ñëw gis Cheikh Barham Niass di doom ci daara ji niñ ko mën a wax hmm? euh, lu ñu gis Cheikh par exemple doon ci daara ji ni ñu ko mën a waxee euh, ñëw di def lii nga xam ne mooy ndékk di sakkan loolu la ban yëgee nga ci ay Cheikh Barham ñu ngi koy ndokkeel beneen yoon di wax ne lii nii dafa mel ni lu bees waaye nekkul lu bees ma sax comme dajale gém dajale ndékki li nii mais naka jekk ci daara ji daf daan dajale koo xam maanaam bëri tey dañoo gis ñu nekk kilifa ci ronam lañ jaar ba nekk kilifa tay kon deug deug bu defé lu melni lool duñ wax guret la naka jekk mbolo si barahama def ci liggey te liggey bi rafet lool lool lool lool lool motax ñun dañ ci contact di ci begg di ñaanal yalla man manam gëna yok fu eggar ren rek bu déwénee yalla man fukam ci barke ko Tunkara Baay Wilane waaw yokkal kàddu gi tuuti rek Tunkara Baay Wilane waaw sang bi ñu nga ñew téwé ci li nga xamné moy ndék li nga xamné cheikh barham mo ngay lam nga ñu mëna wax ci li nga xamné cheikh barham ma sha Allah alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu doon di ziaré di bëgg wala di dégg di sax ci li nga xamné mom la suñu xarit suñu doomu ndey suñu cheikhando wote moy lan moy dara ko koy jox lu moy topam cheikh abdou barham yépp mu takké len ci benn bu ñi am do nekk benn ndax cheikh abdou barham lu ko taxoon a jóg mooy liggéeyal pays bi te liggéey mënta am ci lu mooy nit ñi dañoo takkatoo nekk benn moom nag mu gis ne mu xadam yi bu ñu takkatoo nekk benn xanaa mu xadam yi taali bi ci kaw mu xadam yi leen topp waaw mboolem si am balaa nit dañ takkatoo nekk benn léegi nag wéeru ci loolu ci jógee ci ndigal a Cheikh dañ mu doon koo xam ne ma xam la mu Cheikh Barham muy depuis ma xam ko ba léegi bu nekk ci liy jëriñ toppam Cheikh Barham si lay doon lu mu gis ne lii bu ko defee Cheikh Abdou Barham dina lu mu gis ne bu ko bu ko waxee Cheikh Abdou Barham parce que kon ñu koy yàlla yal na yàlla xam naa daal Cheikh Cheikh Barham moom jox ko xalal du cànku ndax lépp lu ko doomu aadama jox ko feere ko ci toppam Cheikh Abdou Barham te tey may gu gën a rëy ci may mooy nga mën a jël sa xalal jox ko toppam Cheikh Abdou Barham ndax euh, lii firnde bi mooy tey def na loo xam ne kër Cheikh Abdou Barham képp ko def boo añaanul rek war ngaa xam ne yaa ngi ko roy Cheikh Barham mooy lan mooy santal Mbàkke man moom laa njëkk gis mu def moo tax bu ma ko defee ma ci sëriñ bi lii dama koy bëgg a def royee ko sama soxla sama xarit waaye ma ko ñu koy ñaanal yàlla buñ ko ci buñ ko ci mas a ndax buñ ko jotee mooy taxaw te bëgguñ mu taxaw neen di dem nii dem ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk ko mbiram nay màggee na sëñ ko yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam doon màggee barke barke jox man ngi Seydina Alina ah. waaw Seydina Alina nga ñëw tey ci ndékki li nga xam ne moom la Cheikh Mbaraan Diouf di organisé chaque année euh, ban yëgee nga am ci loolu yëg-yëg man d'abord li ma ci njëkk a am yëg-yëg bi ma ci njëkk a am mooy sant Cheikh bi Baraama waaw sant Cheikh bi Baraama ci yar bi mu yar yar bi mu yar yar toog xam waaw ni mu yaree toog xam loolu laay sant ndax li lay jàngal ci ndékki li premier rek mooy maanaam xool ci 你买什么了？ yéene jëm am ko nga xam ne tey xol boobu xol dañu day ne nag ay li ñu wax ne ñi ñëw fi moo nekk ay muqaddam nga jël image trangal leen te tànn leen maanaam yow jël jël surtout trangal askan bi yëpp mu mel ni ci kon yonent yàlla Ibrahima dafa mos wax yonent yonent yàlla Ibrahima dafa mos wax yàlla na ko dama ko trangal fan bi waaye nag yaa ma ci jàppale yàlla na ko nga tibb suuf bi saara ko mu mu soppi ko xool moom soo su fi ni képp ku nekk mbindéef yàlla da ngay jël moom li mu def nii loolu lay jël gi jël ci toppam seen baaraam seen lii ñu ay muqaddam mu jëleen trangaleen tegtale te loolu nag xol bi moo baax xol lañ bokk ci mooy ni nga liggéey doomu aadama xol ba nga yéene nit ñi jàmm fexeel ni nga yë bëgg nga bëggal ko sa beneen bopp loolu def ci liggéey liggéey bu réy réy réy man jëf gi lu ñuy réy réy defee gi ñu ko defee moom gën a yéem nuyu nañ la ziar la la jox sa wàcci waay tey duñ la laaj loo fi def mais euh, programme bi nga xam ne Cheikh Barham euh, organisé ko organisé na ko muy ndékki mu di ko defal ñi nga xam ne mooy mu xadda mu bàyyi loo ci lan nga lan nga ci wax ban yëg-yëg nga ci am. yëg-yëg bu ma ci am mooy kontaan dëkk lii gën a frappé daal te suñ génne ndékkale en tant que doomu gànjaay ngeen dëkk ak moom yaa ngi dégg muy seen grand frère euh, organiser lii nii yëg-yëgu gànjaay mooy lan yéen waa gànjaay ah am ci kontaan rek am ci kontaan rek ndax fu mu dem rek yóbbaale turu gànjaay fu mu dem rek yóbbaale maanaam ci gàttal daal fu mu jaar daal bay fa trace fu mu jaar dafay bay trace loolu moom yàlla ko rek yàlla suñu borom mayëpp yàlla la mayëpp yàlla la liñ naan taal bu yàlla taal sotti ma sotti ci mat moo gën di ko jéem am nañ bëgg ci yow kilifa gi nuyu nañ tur ak sant gi sëñ cheikh mu lay fay bu baax waaw sëñ cheikh li moom dañ ci sawara trop trop trop ndax wax dëgg neex la bu yeboo ñu di euh, yàgg na ko def na ko def ci mais daal lii moom kontaan nañ trop trop trop trop ndax dara ñam dafa am ci yàlla wax ko jox ko doomu ndeysaan niñ koy gis ne moom ci wàllu boppam day ko xool boobu mbir mi di jeex doo gis sax moom mu dem wax dëgg neex lii moom dañ kontaan bu baax a baax eh, nuyu naa la tur wi ak sant ah, maa ngi tudd Mouhamadou maa ngi tudd Mouhamadou si dëkk Kër ah yow sama mbokk bopp nga parce que yaakaar naa ne Kër Ndiaye ak ñàkk su réew waaw man fa laa ñëw ci bés mais en tant que euh, tey bi euh, Cheikh Barham di organiser li nga xam ne mooy ndékki li di ko defal li nga xam ne mooy mu xaddam euh, ban yëg-yëg nga ci am ak lan mooy joxe ñam ci wàllu diine macha allah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli juróom ci yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Cheikh Barham li muy def wax dëgg yàlla ci anamam sant yàlla la yàlla dafa ne léegi chaque personne daa si dan na ko su ngeen sante rek parce que sa borom yàlla def na ñun ñoo bokkoon nekk ci daara ji nekk ci loolu Cheikh daara ji na lool loolu la métti lool da daan gis ñu liñ ne bu ne ngéej am gerte loo xam ne boo xiifee man koo daalalee sa xiif ba ba añ di jot yaa ngi itam xëy na euh, daanul demee noonu waaye loolu yëpp sëriñ bi da doon wax ne rek muñ leen góorgóorlu leen jàng ngeen jàng leen bi si ngi ñëw da ngeen am teraanga yoo xam ne yu rëy la kon nag saa mbokki muqadamam mbokki daaraam di defar bernde yu mel nii dina ay gàtt yu bari di ko booleeg ay boisson di ko booleeg lépp dëgg yàlla kon dafa la waaye mi ngi fàttali ñëpp ne lépp lu ñu Cheikh Barham doon wax ñu koy muñ ci métti di jàng métti di xiifir ah mu doon wax ne ne bis ngi ñëw dina neex kon loolu danañ ko fàttali su boobaa loolu dafa ñu sant yàlla te ñu sant yàlla yàlla dolli ñun fii fa nekkal moo fa yóbbu moo fa defal daara moo fa ubbil jumaa kon le lepp ak ngeenelam la kon mom ma sha Allah lim ñu doon ñu jàngé ñu góor góorlu bu lepp am na lepp yàlla ñu ko jaarale ci moom ki nga xam ne Cheikh Baram def nag nga xam ne joxe ay ñam ah, Cheikh Abdul Qadir Geelani radiyallahu anhu dana ci benn téere muy wax ne gëstu na jëf yu baax yépp dafa gis ne lu ci gën lele ñam mu ne moom aduna yépp ko di jox ay jaam yàlla nga ñoo ñoo ko ñoom ñoo soxla rek ñu koy lekk kon loolu day tegtale loo xam ne lu bëri yéen saa soo xoolee ci benn addis boo xam ne nee na dee leen leel ñu xiif yi waaye dee leen seeti ñu feebar ñi kon su boobaa loolu yëpp loolu lay dugg yéen saa si noonu la.

yokk yàlla yokk wéram yokk fanam yokk teraangaam yokk lépp loo xam ne bëgg na ko ci fee bi yàlla ko yàlla may te bëri ay morom barke Baay radiyallaahu anhu wa salli ala sayyidina joxul kàddu gi rek. dañoo sant yàlla bu baax ndax tey fii nii mooy sama premier jotaay waaw yaa ngi lañ di ko def nag mais tey laa ko a tombé mais li ma gis fii nii doy na xel ndax mooy li Thiaw Brahima doon wax ne ay taalib yëpp li may ñaan yàlla ñu àndoo benn te loolu dafa feeñ fii loolu Seydi Brahima moo ko dëgg 不 te mboolem xamante ne baraam yi daje nañ fii kon lii sant yàlla la kon lii ñaan yàlla bés bii yàlla nañ ci nekk bu bés yàlla nañ fi yokkoo si zaahir ak baatin di kontaan lool ci bés bi di ñaanal Baye Barham lu mu gum ren déwén yàlla nañ ko mën ko lu ko ñu ngi bëgg lool dafa fees ba mënuñu wax dara du may sant ak gërëm rek gërëm mbokki mbokki taalibe bi fi daje yëpp jërë ngeen jëf fay euh, naa la sa diggante ak parce que xam nañ ñu mais bésu tey bi li nga xam ne Barham organisé na ko tey nga ñëw teew ci ban yëg ci yàlla. gërëm si yàlla Barham. bi mu boolee kat la ñu ñu ngi sant bu baax di ko ci gërëm. waaye ñaan yàlla daaw ci heure bi ñaanoon nañ yàlla mu may ñu fekkee ay at yàlla may ñu diggante bi teewaat nañ ci jàmm ak salaam waaye ñu ngi ñaanaat yàlla salaam ñaan ñu yàlla ñu fekkee ay déwén bis bi yëg-yëg ñu ci am mooy yëg-yëg bu ci taalibe bi am waaw yëpp am yëg-yëgu sant yàlla mu ngi yokk mu jot gis ne fa mu yemoon daal ren mu ngi continuer gën a yokk ci am maanaam nag gëm-gëm bi mu am ci sëriñ bi te sëriñ bi waxoon ko ne ko ñaandoog man ñëpp yow ci sàppe bu njëkk ci lay liggéey gëm ca ña bëgg ca ña wóolu ca nga nekk loola lii loola bu amee lan ko muy dëkk rek loola lay fekk sant sang bi nuyu naa la. waaw ñu euh, euh, bi ñu ñëw fekk la fi nga xam ne mooy ndékkil seex Barham Diouf bi euh, mu dajale mu xaddam yëpp yëpp nga xam ne ñoom la doon jàngandoo ak ñi nga xam ne ci kër Baye Wilane lañ bokk.

Adama mu si jóotal si doomu Serigne bi si jóotal xarit Serigne bi ba si jóotalaale ay taalibe Serigne bi si jóotalaale ay soxna Serigne bi donc melokaan bi loolu lay wane dafay wane ni mu bëggee Serigne bi jaam yàlla yi nga xam ne dafa ko Serigne lan la diine wax ci li nga xam ne mooy joxe ñam. waaw sallallahu alayhi wa sallam boo ci lu ci wax. joxe benn benn tibb ñam. dafay tabax ay ay tabax juma. boo xamante ne dafay joxe ñam dafay dafay mel ni koo xamante ne ay juma bokk na lu mu wax dama ne képp ku joxe benn ñam benn tibb ñam neen na ko su fekkente ne ñi fi nekk ñëpp seen biir kenn nekk dugal na ko ay tibb tibb maa kon moom dañuy jàpp ne ay étage yi étage yi am ca biir waaw loolu lañ ci mën a teg noonu. am na mbégte ñu yow bu baax a baax. wax dëgg ñu si tahu kerja juga mau kawan borong kerjaan pada waktu tahu kerja wah sering malah nasi apa kamu kan kan banyak sekali kan izan ini siapa berkam siapa berkam mau jangan mau nyerah kalau nekon aikanam dafa jaadu ñu teral leen dafa jaadu ñu génn suñu néeg dafa jaadu ñu ñàkk a sangu di leen xidmaal ba keroog bañ koy joxe loolu ñu def rek pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi képp ku ko màggal rek ndax yàlla la may mbëggeelam yéen képp ku ko nga xam ne yàlla bëgg na te yàlla moo qul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uunii yuhbibkumu llaah loolu tax ñu coono yi yëpp xañ na ñu coono sax sama bànneex la moo tax ñu koy jànkuwante ngir gis nga rafet gis nga nañ kan yonent bi yëgu ndékki parce que gis nañ ne euh, mënoon nga toog ñu servir la mais bokk ci biir moo tax boobu ba léegi amoo temps pour toog yëg-yëg bi mooy la waaw lii lii moom man maa ko def maa ko def kon bu ma gisee muy ñëw di ko def ci kër gi maa ah, war xar sama tànk waruma waruma waruma nelaw lu ki ko organisé mooy Cheikh mu am lu ko neex parce que du rafet koy def ci kër ma sama du comme euh, di di organiser ku defar gane la rek ñun defar gane moo ñu fi tax a ñëw am nañ mbégte bu baax macha allah euh, kilifa gi ñu ngi leen di ziar waaw yàlla yàlla ñu ngi leen di leen wax dal leen jàmm fii si ñu organiser nii ci mag ñi nga xamante ne ñu ci daayira bi ñu ko defee ci suñu xalaat seen bëgg-bëgg ñu ko ci jàppale parce que dafa ñëw dëkk seen ñam mu am ñoo xamante ne ay mbokk soldaaram lañ wala ay mbokk généralam lañ ci am lay daal mu ne dafa bëgg chaque gàmmu mu defaral teranga ay mbir ñu ñu ngi sawar loolu ci ndërmande loolu itam yëg-yëg bi lan la. waaw loolu sant yàlla dafay wane ne boo def Cheikh Abdoulaye Wilane yi dégg nañ ko Cheikh Abdoulaye Wilane moo ñu te gàncax mooy mu ne li may ñaan yàlla mooy ñi ma àndal ci ñëpp ñëpp ñu bennoo kon tey bu ko waxee gàncax Cheikh Fatou Diouf borom bu ci jàmm gàncax yi ñëw wax kafe boo defee noonu ñu xam ne ñu ngi si kon loolu dégg nañ ñu man ma war a waaw ñu gis ne maanaam euh, ren ak daaw wute na lool parce que gis nañ ne ren affaire dafa gën a yokk lan mooy secret boobu. waaw secret bi dara lu ñu ne Cheikh Moulay moo ñu wax ne moom xam si dëgg la xidma li mu yëg si xidma bu ko waxoon am na ñoo ne ñu ngi ci am doxam danañ waaye nekk ñi nga xamante ne nañ message bi nga xamante ne moom la ak yéene bi rek bu déwén saa incha allah yàlla dafay def yokkute dafay am te lii defuñ ko lu dul ne yàlla rek a tax moo tax jamono bi nekk rek dañuy am tànk

ñaanal yàlla oh, oh, oh lii fii nga xamante ne la bëgg a la yal na yàlla dimbale ba mu yegg fa saa bu gëstoo yàlla ñu ci ginnaawam saa ñu wóor ñu ci ko ñun yàlla yàlla ñu yàlla jox ay milliards yoo xamante ne fi indi fii suñu bay kapam waaye ñu lay jërëjëf baax sa taxawaay macha allah kontaan nañ bu baax di la ziar yàlla bàyyi euh, di am mbégte loolu jàkkaarloo yow tey ñu ñëwaat fii fekk la di ko def dëgg mboolem ci soppo Cheikh bu baax maanaam si xaddam dundee bés bi tey ak lan moo la may am ci tey maanaam waaw bés bi ni ñu koy dundee mooy balaa dara ñu ngi gërëm Cheikh Abdoulaye bi laa euh, wax ji nag lu mu rëy rëy li ma wax léegi rek jëf ji lu mu rëy rëy mooy jéem a dimbale Cheikh Abdou Barama ci benn point dafa am lu ñu mujj a wax ci dundam li may ñaan yàlla li may ñaan Baye sama kalaama mooy ñi ànd ak man ci baay moom daanul wax sama taalibe daf ñu daane boo déggee ma ne sama taalibe rek borom daa war a dugg ci problème ma ne leen sama taalibe la pour mu génn ci mu ne budut loolu moom du wax tiw sama taalibe daf ñu yàlla mooy ñi ma àndal ci Baye seen xol yi nekk benn ñu àndoo ci bàyyi nekk benn loolu nag pexe moo mën a bu waay mën a def rek pour jàppale ko ci rek nga def ko lii nag bu ko defee pexe mi lan la mooy dajale jaam ñi nga xam ne ay jaamu cheikh abdoulaye bi parce que ñoom ñoo tuddee seen bopp rabitatu xuddaamu cheikh abdou baram ci njiital cheikh commando baay cheikh omar boobu topp ci ay seydi pap siñaan ñu jiite ñu jiite bu rafet léegi nag ñu fexe ci bés bi profito ci pour dajale leen ci bés bi parce que sëriñ bi daf ñoo wax wax ji dem léegi nag comme que wax nañu wax ji dem kenn ku nekk fexe fexeel nga bay ci wax jooja bay ci wax jooja mooy fexe dajale leen soo leen dajalee ñu bokk waxtaan gisante bëggante xamante parce que nit ki lu mu gën a xam gën koo bëgg lu mu gën a bëgg gën koo jàpp lii mooy li nga xam ne moom la ñoom commando xalaat ñoom Cheikh Omar Mbuub ñu def ko nag ci seen doole ñoom waaye du sax doole param bi waaw waaw bu gànjaay li tax ñu koy def mooy kazaalika noonu la parce que ay wëlu yu yàlla yu mel nii leer na ne ñoma ma gën te su ma leen wooyee ñu wuy si ma ba biset dama leen di répéter man talibé Macky Sall la léeg-léeg ni am ci gamu mané ko dana ñew ñu dem bam mu nguur soxla ma ma baña ñew woko woko sax daf may métti su buñ ma wooyee lu kuy bëri damay absenté parce que man damay liggéey ci nguur ñom nak heure bu ma leen wooyee ñu buub seeni bagage ñew deug deug warna fexé ñu am luñu gis ci mam alaaj Abdoulaye dafa xey ñew nuy ci bay bay nak ko alaaji Abdoulaye xolal jogal xol ci setu bi papa ar jog xol setu bi mu ne ko lo gis mu ne ko suma bopp mu ne ko kuy ñew ci yow bopam lay xol bu gisee boppam toog bu gisul boppam dem bëgg jaam ñi taalibeb si Abdoulaye Wilane yi nga xam ne ñoom ñooy samay sëriñ man damaa ne kuy taalibeb sëriñ bi man pare naa pour nekk sa jaam joteewuma Baye Wilane waaye ñoom xëy na ma joti ci ñoom su ma leen bëggalee ñoom dañ ko wax ku mag ki xëy na ku mag ki kontaan ca parce que man gàttañu naa pour jot ci Cheikh Abdou Brahma waaye ñoom joti nañ ca ma fexe di leen bégloo suñ bëggee ci man rek xëy na si Abdoulaye Wilane dégg parce que nag ahlu makkata adraw bi an fusihim maa gën a xam suma bopp buñ ma bàyyi suma bopp yàlla lakk ma lakk googu lay daw moo tax ma bëgg ko jaare ci li may bokk ji dénk mbokki taalibe yi mooy ñun ñëpp nañ fexe nekk benn xam ne Cheikh Abdoulaye Wilane rek moo fi nekk kenn ku nekk na gis Cheikh Abdoulaye Wilane kenn ku ne boo xoolee sa morom nga gis Cheikh Abdoulaye Wilane mooy ruloon parce que ñun bu doon ana man ana yow kenn du fi daje man ab séeréer laa xam ne maa ngi dëkk ca àll ba am na ñoo ay pël boo xoolee tey ñi fi nekk nii bambara yaa ngi fi joolaa yaa ngi fi lépp ngi fi daje kon bu ñuy dajee nañ xam ki ñu dajale mooy Cheikh Abdoulaye Wilane mooy xablulaahi bi ñu boole kon kenn ku nekk boo xoolee sa morom nga gis Cheikh Abdou Barama ci moom bu la xoolee gis Cheikh Abdou Barama loo xool gis ca yàlla ñeme woo caa def faacaan ñeme woo ko caa wax loolu olof yi loo xool nga gis ca yàlla doo ca def faacaan doo ko ca wax kon ni muy dënk mbokki taalibe yi mooy kenn ku nekk na nekk seetu moromam soo xoolee sa morom rek gisal Cheikh Abdoulaye Wilane ci moom bu la xoolee nga gis Cheikh Abdou Barama ci yow xam nga ne ndaama kenn du wax ci moom lu ndax amu ko laysa lahu lawla bu fekkee ne nag kon kooku defar lu bon su ma toogee ne Cheikh Commando Baye mi baaxul damay jàpp ne sëriñ bi liggéeyam mooy échec waxuma ne ci commando baaxut de man maa saboté si Abdoulaye Wilane dama ne liggéeyu sëriñ bi baaxut parce que moo defal commando baay kon nag pour sagal sëriñ bi bu waa ji bonoon sax dama ko war a téye baaxal ko parce que liggéeyu sëriñ bi la te sëriñ bi amul lu bon kon li may dënk mbokk taal mooy nañ xool kenn ku def xoolal sa nga si Abdoulaye Al Ibrahim wax ci xalifa Cheikh ne moo ñu gën xam nga doo moo ñu gën si Abdoulaye Wilane mi dem alamul arwaahi fekk fa ruux yëpp romb leen jël ko loolu firi moo Thank you. aalamul arwaax ñun ñëpp mu fekk fa la tànn ne ko yaay sama taaw kon kay lam ñu gënee ci aalamul la ñuy man bu ma sañoon man la sëriñ bii tànn waaye gën gi ma gën moo tax ñu tànn ko ci aalamul arwaax bugguma ku ma man bugguma ku ma goreel man jamam la parce que jamu bayam la won te buma ma dikko bayam newatu fi tizayel zahir damay doon rek ma nek jam moma gëna nek talibé non la yam luñ ci wax la khair ma ngi ñaan ci bi yalla kaw amin yalla yalla yobbu ko fuñ fogu tan tan mo tam ci abdou barama yalla dugg ci sidi ma ngi leen di gëreem yeen ñep waye nak am solo bu ci abdou barama mo am solo te du man ma tax ngeen def ko bayi lan tax ngeen def ko te mom nak bok lebu lay lan ku ko lebal ker mu fay la guddi billahi wallahi wa ta'ala wax na ko xalé dem ne leen cheikh abdou xam nga boo ko lambee gisoo ko rek ci yow la waaye di fi ñaanal nga toog mu indi daaw mu indi télé bu ndaw ren mu indi télé bu mag ñaanalaat ko yal na yàlla ngeen amee fatu yàlla moo amee fatu yàlla mooy dolli wa hal min masiidin ba yàlla ne wala day naa masiid yàlla nañ ca jëf ci barke Baay kontaan nañ bu baax jazakumullah Thank you. बंटी लोग तेल बंटी लोग मर ay sëriñ bi baal ñu de. sëriñ bi bismillah Thank you.

nhau loolu mooy nekk kadoom ñu ngi doog nit ñi nga xam ne ñoo toppanti koom yëpp muy jaxate bàyyi weyaan kon moo jël deuxième bi moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokkal ko kàttanam ak wërsëgam ci barke Baye léegi ñu jox kàddu gi Cheikh Abdou Baram euh, Abdoulaye Abdou Baram Makboul mu laaj addiye ji jaxate bàyyi weyaan moo jël deuxième ci gin gi neew ñu jox Cheikh Mour Ndaw mu laaj addiye ji ba leen jox sëriñ bi te yeewi ko incha allah ñoom Baye Wilane docteur yi xol yi wéral jaan ñun ñëpp nañ wax jërëjëfee Cheikh Abdou Barham ñun ñëpp nañ wax jërëjëfee Cheikh Abdou Barham ñun nañ wax sang Cheikh Baye Awal ñun ñëpp nañ wax jërëjëfee sang Cheikh Baye Awal sëriñ bi ñu lay bokk na ci li wax léegi rek nee na hadiya yi jaru ko coono bi nit ñi daj ci gàmmu gi ku bëri yërmande la ñu laajee ci programme bi ba programme boobu jàll daf na jéggal naa gaay yi mu ne dañoo sonn kuy bàyyi xel doomu aadama yi seen bi moo baax Oustaz Baram daf maa déy ne ma nañ fexe dajale addiya bi dem yóbbu sëriñ bi ma ne ko sëriñ bi de daan nañu wax ku noppal sa sëriñ yàlla noppal foofu la ne sëriñ baa ngi ñëw ma ne ko li muy tegtale sëriñ bi bu jëmaan ci place bu mu bëgg dëgg ci ñun suñu fonk day jiitu heure bi ñun xam nañ ne bëgg nañu fonk nañu ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan am na loo xam ne nag pare say mbiree koy génne waaye dañ ko bëggoon a denc moom ba heure ba jot Cheikh Pape Sina wax na ne Cheikh Mbaye Gueye dafa feebar mu ngi hôpital dëgg la dem naa fa ci ndigalal sëriñ bi mu uutu leen yéen ñëpp nag kenn ku nekk fii rek Cheikh Mbaye awal àddina la ponkalum xar mu weex tàll la ma jox xam naa bëggoon ñu wax ko waaye comme Pape Signane moo laal foofu rek buntu boobu day ubbeeku saako pomme de terre soble mboolem lu jëm ci gàmm ñu yegg ko ci oto bi dàq xar mi ñu yegg mu ne dama ko def ngir yeneen ci yàlla Muhammad yàlla may ko wér ba ñu yeggee maire bi kontaan seen mbay gi audio bi mu def rek yëg naa ne am na beneen wér gi yaram bu ko dugg te kenn ku nekk su ko yëgoon daf koy def loolu ci loolu ci koy Cheikh Abdou Barham Cheikh Abdou Barham benn bis am na laaj bu jógee a pay ba sëriñ bi ne xam ngeen tawu mbur baax mooy taw yooyu nga xam ne tool yu a ëpp te kiiwul su ma ci juumee ngeen baal ma ñu naaw mu ne xam na lu fi jotoon a nekk laaj nañ ma ko danaa ci wutu mbooloo mi xam ngeen ne Cheikh Baye bu woon Barham ne ko yóbbul ma kër bay Mbaye Guèye nangam day ay daw la fi demee waaye waxu ko kenn moo ñu ci wutu sëñ bi jërëjëf bu yàgg aadi gajaga ca xam ngeen ko dia mudah mau nama nama lakukan sering lakkal IP bi ay bain defal ko ay mburu ak yooyu waaye wax jam wax laa mana a wax mau ne Cheikh mana Awal mooy nouveau modèle ma ne waaw dia ne da nga gis ku dem Dubaï jënd benn oto boo mana ne ancien modèle la dem ko far soog nouveau modèle pour ay vitre mau lépp model ne dia nak nak model

juróomi junne daan daan nee naa ko taal daay gën caa fay. Abdoulaye Faye junne Cheikh Abdoulaye Faye ne jegel ne jegel bëgg a nekk ñu ah, ko tigi Cheikhou Tidiane Diop junne jërëjëf Malle Sané junne na ñëw a di kete ka ko def nouveau modèle bu ko bëgg a nekk am sa seen sa seen waaw dara bàyyi wilaan junne bajande yàlla junne bajande yàlla junne bëgg a bàyyi wilaan jërëjëf Essa Diallo Abdou junne bay bay bay dem na ñëw ku amul junne sax lebal Ismaïla joxe na junne Mamour Baye Wilane Mamour Baye Wilane Dioundé delloo ma junne jërëjëf delloo ko junne Baye Demba ak Cissé Baye Demba ak Cissé Baye Taïba ku nekk junne ku bëgg a nekk lu modèle ci Baye Wilane ñëwal Cerno ko junne Alsaan Gueye junne na ñëw Oustaz Mamour Camara Oustaz Mamour Camara junne dana jàpp maam yàlla junne dama jóg bi mu àndal wallaay su joxe da nga nekk nouveau modèle di bàyyi junne ah, am ami Diouf junne xadi bàyyi junne ami Diouf junne ndeysaan na ñëw na ñëw wallaay أمير نحو سليمان تارة ولسودا ala Diouf Gambol. Junne Diouf ca Junne la ñëw. bari bàyyi lan ana nga. da ngeen di ñëw baaxoo woo leen. ci moom sama xel maa ci moom. ma ne ko sa xol bee sa xel bi fu nekk du yàqu. jërëjëf jërëjëf Cheikh Baye Awone. ma ñëw. waaw jublu la. léegi lañ mottali manqué na dix mille francs ci deux cent mille. Pape Signane am na dawa ngi ñëw sax. tigi Pape Signane junne deux cent mille waaw góor. Seydou Karim na ñëw. Naka la Ablaye Diop ak Baye bàyyi loo ku ne jinne ëpp na waaw waaw li ñu sama juróom fukk la baram nee naa ba muy dem ba muy dem ci Baye Niass juróom fukk la jaar Ablaye Ndaw ñaari junne Cheikh Abdoulaye Ndaw Ndaw joxe na ñaari junne ma dekk fa ba mu génnee xool mbooloo bi dafa kenn ma ne waaye ñun buñ ko fàtte jërëjëf Cheikh Baye woon yal na nga dund téeméeri at ak ñaar fukk fii nag booy bëgg a bàyyi laan ba yegg si ci moom sooy boo nga moom mooy première deuxième kay nañ ko xëccoo ji waaye première baa ngi nii. deux cent cinquante yi manqué na trente lu waay am moo tamit bàyyi bàyyi la ku ci def lépp loo sumb dana mat amul ku la mën a gàtt. motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi bàyyi la motalil bàyyi الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا مثل الباي فيلا Bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. Motalik, bye, Baila. mu ne ma moo doon baax le soo ma waxoon ne la soo ma waxoon ne yal na la yàlla xendu la xendi ma xam ne ngeen ma ko baaxee te mbir mii dama leen ko xamee waaw jooju daw na yaram waaw boo ma noonu yal na la yàlla en la de damay gis ne ngeen ci génnee seen bopp mu ne ma man denculuma kenn ci suma xol bi dara man dama leen bëgg waaw sëriñ bu taxaw ne dama leen bëgg yow foo jëmati waaye laa nee na yàgg ngaa romb ñax mi ci àll bi doo ko faale mu ne waaye ndaw soo ko jël ci àll ba fóot ko def ci kaaneeg ji mbooroo ko ci jënd yaa ko xalaatal lu xar bi mu ne mooy am place ci xol wu liggéey yàlla jërëjëf Fatou yàlla na ko yàlla Jaram Barhama ñu ngi nuyu mbooloo mi kenn ku nekk ci turam ak jëmmam ngi leen di ziaraata di leen ndokkeel bu baax di am mbégte aw kontaante bu baax ci mbooleem ku xam ne yàlla indi la ci place bi sant yàlla ci yéen bu baax dama ñëw rek pour wane sama mbégte ak sama kontaante pour ndokkeel leen ci xadamaat yi nga xam ne yéen a ngi ci rawatina bii nga xam ne ci lañ toll muy gàmmuwaat gi xamne siyaatu si yaatu barhama moo ñu ko wangal andil ñuko damay faral di wax toujours ne lépp lu baax fépp doomu aadama di jaar lu baax Cheikh Abdou Barhama andil nañu ko tracé ni ko lépp mbégte lépp lu doomu aadama yi jëriñoo maa nga na ko indil ko ay ñoñam lu ci rek nañ la fagul nañu bu baax ñaan mu ngi xaalis bi nga xam ne moom ngeen jël def ko ci ay nag nag yoo xam ne képp ku leen gis xam ne ki def lii def na ko ak yéene ak mbégte def na ko ab kontaante waaye it xeeb nañ lañ def man loolu laa gis ci jëmm yi gis naa ne def ji rëy lool ci man waaye ci yéen gis naa ne xeeb ngeen ko ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax a baax dimbale ngeen ma dimbal boo xam ne néew na ku ma ko dimbalee ci gàmmu gi parce que boo wooyee jaami yàlla yi lay dalal sa xel ak sa bi mooy ñu lekk ba suur naan ba màndi man loolu mooy dalal sama xel dañ may faral di waaye du xër nit boo ko déplacé mu ñëw ak coono ñëw ak mbégte ak contentement waroo dugal ci xol bi lenn loo xamante ne dana yàq liggéeyam booba xam naa ne sa du ko yàq bu ngeen ñëwoon ñàkk lekk ñàkk a naan yàqu dara ak seen yi waaye nag dugg na yéen rek yéen a fi teew te doomu aadama doomu aadama la am na foo xam ne dafay soxla boppam moo tax kontaan naa ci jëf ji bu baax a baax bi ko dama ah sama xel dal na bu baax ndax gàmm gi dafa nekk gàmm goo xam ne yi dafay bëri lool te ñaari gàmm la bàyyi gisee oustaz Cheikh Dramé mais faral li ma tooñ bu ñu réglee gàmm moom it na bàyyi Kaolack ba pare ne xaalis bi nangam la nag nangam la wax ba ba ndaw gi ren nag gàmmu ko mag bi moo des ñoom gàmmu la ñuy wax gàmmu ko mag parce que ci la feerawaay yi ëpp wax dëgg yàlla dimbali ngeen ma lool lool lool lool lool kontaan bu baax nag yi rëy nañ lool ma ko wanee ñoom alaaji wàkk ba ñu xool ko dañ na man ñaari nag daal buñ ci tegee yeneen ñeenti nag suñu xel daal xaw a dal te yàlla may nañu loolu ci mbokki taalibe yu baax yi nga xam ne ñooy ñu indi seen i teraanga di ñu ko dimbalee yal na yàlla dimbale leen yaa yàlla dimbale leen yaa rabbi gërëm naa rabita bu baax a baax a baax a baax xaw ma si baraam moo ko jiite xaw ma si naa war ko jiite seen ñaar ñuy dama ci xaw a am lënt lënt xaw fii président bi waaw commando Baye la ah c'est commando Baye ah, parce que bii koy falit yëg naa ne werante ngeen ci kii ne koy fal kii léegi waaye ba léegi man bëgguma xam kii président waaye en tout cas daal dund naa leen bu baax Sidi Barham mooy njiit li ah, si dama war lu mu doon yow la ci doon am na la ci doon kay ah waaw parce que lu bëri yaa ma ci am na la ci doon lu bëri daal te am naa leen ah. Cheikh Cheikh Barham Cheikh Barham mooy président mooy président bi. commandeur mooy moo ci topp. moo ci topp. Baye Omar mooy coordinateur bi. Tafsir Finane mooy trésorier bi. waaw. Ibrahima Faye mooy kaati. Ibrahima Faye mooy kaati bi. man man amuñu njëriñ ma wax rek ma wax kat <laughs> bi. lay wax en tout cas daal bëgg naa ci yéen lool lool groupe bi muy dox bu baax yéen may dimbale euh, benn bés ñett naa ma ne man seen programme bi duma fi ñëw di ndax dama fi ñëwoon daaw jéeg la ngeen bindoon ñu bëri joxe wuñ ko ah loolu la demee ma ne man man moom kon duma fi ñëw di parce que ba ma fay ñëw loolu la taxoon ma ñëw ko ba ma ñëwee la taxoon ma ñëw def leen ko waaye gàmmuwaat yi passé ak gàmmuwaat yi leen maa defal teraanga joo xam ne moo tax suba teel laa ko Omar Koli ne ko waxal seen baraam ne ko suñ paree rek nañ ma woo ñu <laughs> ne kon da ngay ba ndékki soog a waaye daal kontaan naa am na mbégte bu baax am na beneen mbir boo xam ne feeñ ci ñun xam nga ñun yàllaa ngi nattu Cheikh Oumar Awa moom mu doon wax ne ci gannaaw ak maam si Ibrahima Fall dong laa mën a bootu liggéeyal baay ba yëg ni liggéeyal maa baay gi sama xol bi ak sama roxo parce que yàlla daf ko bind muy nit koo xam ne xidma rek moo doon yëfam bëgg na bàyyi lool bëgg na xam-xam lool waaye fi xol bi gën a xaju mooy xidma maqaam boobu moom yàlla da ko may may boo xam ne ñëw moo tax yàlla nattu ko ci ay taalibe moom xidma rek ku leen gën a ñëwee xidma ci kaw suuf man gisuma ko waaw man gis naa ñoo xam ne dañuy joxe bay joxe seen dépense loolu dama koy gis bu baax ñoo xam ne dañuy joxe bay dépense bi ñu war a joxe suba ñu jël ko joxe ko toog kaar yàlla man rek am na foo def ci wildaam jëfin bu raw yaram boo xam ne war a joxe ci Baye Niass amut ko fekk am na ganaar itam xarit mu jaay ganaar joxe ko ci Baye Niass moom ñàkkaatam xarit xam nga loolu loolu foor la moo tax maa ngi leen di ñaanal bu baax wërsëg boo xam ne ñëpp bu ñëwee àdduna yëpp danañ xam ne si Abdou Barhama ñi ko topp yàlla jox na leen wërsëg ñaan gi may ñaan yàlla bu kenn dee te gisoo ko yàlla xam si nga dund nit ba doyoon ba ko yàlla jël ma yàlla yàlla defal leen loolu yàlla sama xol bi seet na ci yéen buy kontaan naa lool ci taxawaay bi waaye am loo xam ne su la neexoon nga bañ koo def te dara du la ci fekk dara du la ci fekk waaw nagu gàmm rabita seqal ko si ñax su baraama mos na am benn yoon man maa ñëw ngeen seq bu la neexoon ngeen ne ñun liñ seqoon sëriñ bi rek jeex na amul leneen boobaa dama koy gërëm lool parce que da ko seqoon ak si ñax su baraama te li ngeen jëflante na moom def ngeen ko waaye lii naatu la la yoo xam ne yéen a ko teg seen seen bopp wala boo sax man maa leen ko teg ren man maa leen ko fekk ndax bi ma ñëwee ci liggéeyu gis na bàyyi Kaolack laa ne waa gàmmu gi ñu ne ma yeeg gàmmu gi weer ci des ma ne weer bi ne waaw affaire yi jàpp ak man ma ne seen seen barxam dana ñëw ci programme xaaral ma xaar bu nga si laa ko wane bu yéen la ngeen defoon daaw ndax ren dana am mu ne ma lan ma ne ko nagu gàmmu mu ne ma incha allah dara ma ne ko ah mu ne waaw ma ne kon baax na waaye gis nga ko lañ defoon daaw ren dañoo def ñaaram ñaari nag yoo xam ne fu ñu ko xeew daa mat six cent wala sept cent mille yaakaar naa kon nag xaw ma fi la waaye sama gerte laa waxee rek lan bu kon kontaan naa baax bi dinaa bu baax damay am loo xam ne yàllaa ñu koo baaxee xam nga ñun dañoo bot bukki waaw bukki sëriñ Mura wax ku bot bukki xaj baw la dafay am lu yàlla ballal ci Seex Tuubaa xaaw muy xaal boo xam ne ñun ñoo koy dund te dugul nañ ñëpp ko mën a lekk mu rees te ku mel noonu dangay fa dangay fexe ji fàggul sa bopp loo xam ne dootoo kenn fi mu wax ne xaal bii bëgg tooñ kenn ma xool du ko fa def fuñ ma xool nag danaa ko fa def yàlla bu may naa ma pàkk yoo xam ne samay pàkki la maa ko moom na ma Koppe may na ma Saam may na ma Madina may ma Taïba ma fekk ma tooñ moo tax yàlla daf ñoo may pàkk boo xam ne ren damaa teg benn waaye fële loolu yëpp dafa am mbir yoo xam moo ko ci biir te mos yoon du ma dem ma xaalaf kenn yàlla may nañu pàkk bi dina bàyyi dama ko bëgg a tabax nga xam ne képp kuy taalibe bu la neexee ñëw dal kuy siyaare si bu la neexee bu la neex sa ngis daal yi sunduur bu ñëwee rek ba xolam sedd allah bàyyi moo tax ma bëgg a pàkk boobu ñu tabax te ñun taalibe yi ñoo koy tabax incha allahu taala bëgg naa diwén daal bëgg naa ngi taxaw foofu ñu pàkk boobu man nag damaa xër damaa yàkkamti

waaw fii ñaar yëpp mën nañoo mat ñaar yëpp mën nañoo mat nit ñëpp ñoo ciy bokk sóobu ci man ak yéen ak képp ku ci yàlla boole ñun ñëpp ñu bokk liggéey ci xabru beeg kër geeg feneen ak feneen ak feneen lépp si Abdoulaye Ama dana mat suñu mbir ñëpp ñun ñëpp dana mat d'accord naa ci li nga wax bu baax waaye dama bëggoon rek jàllale message bi ñëpp dégg ko ñu xam ne yàlla jox nañu pàkk boo xam ñoo ko moom bi dina bàyyi kaw waral war nañ koo tabax lépp luñ ci bëgg a def def ko ca bëgguma tabax ab kii ak yooyu tabax ab taale bi nit ñëpp nañ dem rek dugg la ma waxoon ko si loolu lay wax foofa bañ déparé ñu ah kër gi ma ne nañ miiré rek nañ ko miiré buñ ko miiré bu ñëwee baas toj ca baas ya loolu lay wax foofa bëgguma wax naan duy sàngam defal nangam duy sàngam ku nekk yaay wax la nga mën nga def ko ndax bindoon nañ ko daaw yéeg joxewuñ ko ma loolu dama koy wax rek fu ngeen dégg ko ñaamab yàlla bu ci yàlla man loo nga mën a walanteeru ne man danaa def nangam xaw ma direct ne bàyyi woon ma ne la ñes

lañ jëm foofa lañ jëm. si Abdourahmane ubbi na géew bi de. ah jox na ma fukki junne ak ñaar. kan la. ku may dénk xaalis bi liggéey. déedéet noonu tom la koy def tom. ah na ko motali tom. na fukki junne ak juróom la. ah da koy motali. 300 mille jërëjëf. loolu ah sama tonam gi ñaata la. 70 mille teg ci 10 mille ci ni leen di demal ci ñoom rek nañ ko lijjanti suñ paree ñu lijjanti voilà tamato na ngi nii quatre-vingt mille la ngi amul commando bay trois cent mille Sali Oustaz Salif ton may na ma xool sama gars yi xamante ton ana Thierno Thierno Ba ton bay bari ton avance na trente mille bay bari ton xamante naa sama gars yi may na ma xool leen rek xam Thank you. Cheikh Lamine Diop ton ana ana ku fi ne ah Cheikh Badji sëriñ bi kañ nga bëgg a am yow yaa am kañ la ñoom ñoo koy wax décembre décembre la yem décembre la yem kan Diouf doom Baye Diouf ca Thiès une tonne une tonne décembre la yem 31 décembre na fekk lépp mot Omar Tounkara une tonne. ah Cheikh Tidiane tonne. Bati waaw ah Cheikh Abdourahmane motali na 100000 yal na la yàlla dolli moo téye drapeau bi kay ah naka fukki saako bàyyiloo saako yow noo tudd Baye Niass Diagne une tonne ah waaye naa ah, ko Ablaye dañoo xam dañoo xam. d'accord na ngeen ko dimbale ci xabru. Ablaye nag dimbale xabru bi tam da ngeen cee war a wax. joxe la sànq waaw bu ñu paree ñu wax. man at a ngi nii may xabru bi xabru bi rek. waaye ñu ngi lay jox. yaa ngi lay jox dara dara joxe wu leen ko gën a am. dañu laa mos a déglu bu leen joxoon xabru bi mosul. ma daaree bi ci ci mel ko da may sonal. Oumou Diaw ne fukki saa. Serigne bi Oumou Diaw ne nga ne fukki saa. yaa ngi moom na voilà. Thierno Tignane ñaari saako. Ablaye Diaw nga yor ñetti saako Abdoulaye Ndiaye Linguère Ali Baye Wilane ñaari saako Ali ah, naka Baye Waly ñaari saako Aliou Aliou Signane vingt mille sëriñ baa ngi jël de Aliou Signane vingt mille ah Adi Baye Mbow dix saak ñaari saako Mamour Baye Ndolomay ñetti saako Cheikh Tidiane Diop ñaari saako Cissé Baye ñaari saako décembre leen jàlloo al a ah, joxe nga cent mille

okay? yéen mbokki léegi ñaata la yéen mbokki léegi ñaata la joxe in toog mën a xëy sëriñ baa ngi taxaw wax sëriñ ji fii ngeen koy waxee cinquante nit ok mbokki léegi wax kay baaw gàtt la fukki saa mbokki léegi in toog wax fii yéen ngi jàkkaarloo sang lu ngeen bëgg am ko bakkari ah bakkari si c'est dix sacs Modou Ndaw yaa iya. ngi décembre leen 31 da fekk ñu réglé lépp. Modou Wilane deux Abdul Rahman Wilane. Oustaz Abdourahmane Cissé fukki saako. Aliou Aliou Aliou Aliou Sitaka Aliou Wilane Mam Boy ñaari saako Cheikh Pa Wilane juróomi saako. imam fukki saako. Mau jëlal de décembre leen 31 Pape Pape Signane. ak jiilul jadid fukki saako yéen waa jiilul jadid yéen a ngi dégg Pape Signane jiilul jadid fukki saako Alaaji Mbeng fukki saako Bayolanti TV ñaari saako Bayoulane TV ñaari saako Baye Sall juróomi saako yaa ngi daana Bayoulane TV ñaari saako ah des na dafa am Oustaz Ibrahima Faye fukki saako jëlal yaa ngi jël Oustaz Ibrahima Faye fukki saako des na amul lenn dañ koy jox ah kon dañ koy joxe ñaari Bayoulane TV ñaari saako mbaax na lu ma la delloo dara amul delloo. waaw saako teel a nangoo Ndiaye. Cheikh TV ñaari saako. ah Oustaz Tafsir moog waa këram juróomi saako. tuutiwul Waly Baye bind na Oustaz Ndaw benn saako. waaw yéen li xam naa benn saako. sëñ Abdou Barhama radiyallahu anhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Ilaani ah fàtte naa fàtte naa man man waxoon naa sëñ Barham ne ko ku jël cadeau bi dama boo joxee sa cadeau danaa ko jox cadeau kon sëñ Barham yow yaa jëloon bi sa cadeau yaa ko may mbéy géey bii nag xaw ma danga koy maye xaw am

Yes, yes. waxal loolu. mu kilifa gi nuyu nañ la ziar. ñu gis ne li ñu defoon daaw am ci ndam defaat nañ ko ren ndam di gën a yokk lan mooy secret waaw ndam moom li koy indi ñu ngi sant yàlla di gërëm Cheikh Abdoulaye Wilane ndam dafa bokk ci li koy indi ànd ak ñoo xam ne yéene nañ man un la ñii dara nañ koy zéro yi bu ëppee morom doole rek seen yàlla ñi ak man jël seen ruuxu yi waxuma la xol waxuma la ruuxu yi sax dañ ma ko yëkkati ma gën leen ñu am ci bëgg sama ndam kenn ku nekk ci ñoom bu sañoon man duma def dara nekk ci seen xol yi nekk ci seen yi xam naa seen yéene ci waral lu ñu am jox ma ñu foog ne man maay def fekk ñoom ñii dara ma ñoo fi gis lu gàtt yi bari bari bari ñoom ñoo koy bindu ne danaa joxe nangam seen bopp di ma jox jël seen bopp di ma jox gis nga groupe bii dañ may balaa ñu may laaj départ ñoom ñu leen kenn ku ne bu ñu jëndee béy ba pare dañuy joxe seen i cotisation kenn ku nekk bindu ci nangam nga xam ne man lu ma leen jox rek ñoom ñu mottale si njiital amati yàlla ne ñoom ñëpp ay ma ay malaaka lañ kenn moomu ci boppam di ko indi mooy xol bu sell ak xol bu bëgg dañ maa bëgg alhamdulilah ma ne dama leen bëgg aw nit nag suñu àndee te bëggante luñ song daana man ak ñii dañoo bëggante dañoo am place ci sama xol xam naa ne noonu laa amee place kenn ku ne boo xottee xolam baraama du baraama nga jeexe lii moo tax lu ma bëgg a def moom ñoom la ñooy sama doole nit ki nag loo bëri la bari la te amoo doole doo dem lu mën-mën te amoo ñu la bëgg doo dem man na yàlla daf ma suturaalee may ma ay àndandoor yoo xam ne man maay seen xol yi loolu mooy sama doole ñi mag ñi ñi ñooyam de yàlla daf ma may loo xam ne dafa man daf ma jékki daf ma dépassé mooy ay gone yoo xam ne ku ci gën tuuti boo xottee xolam man nga cay fekk loolu bàyyi laan moo ma ko dimbalee moo tax amut lu ma ñemewut a gis nga léegi tonn si laa bi génnee gu ko fay nañ ko ñu ma bëggoon ak kenn ku ci nekk ci ñoom bind ma ma ne de bi ma la xoolee dañ xam nañ ma ba mu ma ci xoolee ni xam nañ ne parce que xam ne attan sama doole yëpp dara lu dugg réew si ñoom la ñooy sama doole ci gàttal loolu laa mooy tontu. ñuy am mbégte itam parce que yaakaar naa leen daara ji yor rek yaa fi jàng mais boo fi jàngee ñu di li nga xam ne mooy ndékki bàyyi laa euh, ñu gis na maanaam. waaw bi am na ci mbégte bu ñëwal bopp waaw yëg-yëg bu mooy dëgg la xam nga taw dana ma téeméeri taw waaye benn moo ci baaxal nawet waaw taw dana ma téeméeri taw waaye benn taw moo ciy baaxal nawet booba nag doo ko xam yàlla xëy ba mu yàgg rek ñu xam ne taw bi moo baaxal nawet loolu moom loolu laa léebu rek du ma ci continuer loolu laa am lu ma ciy tontu euh, mooy daal taw bay baaxal nawet ba loolu moom yàllaa ko xam noonu la koy defee ci biirum ci biir ci biir nit ñi nag leylatul xadri dañ ko nëbb ci biir bés yi yàlla nag mooy feeñal bët bu set ñu ne lii mooy leylatul xadri moo tax juree nit daañ daje ci daara ji fekk am na koo xam ne moom la yàlla dajal dencal dara lii nag mayu bàyyi laan la ci maa tey lañu ñu ko maye lii mayu bàyyi laan la maa tey maye ko ci la ñu ko maye du suñ góorgóorlu du suñ dara ci maa tey la ko waaw sang bi ba di dañuy ñëw ci question mm-hmm. waaw parce que gis nañ ne euh, saa yoo woote xam tamit dañuy yàq avant bi yegsi sax góorgóorlu di xañ sama bopp suma bànneex su ma dajeeg moom ne leen yéen a ma gën te dama koy dund ak ñoom di ko jëflanteeg ñoom wan leen ne yéen yéen ay sama sang bañ gis seen bopp ci man nit ki na bu gisee boppam ci yow foo ko woo mu fekk la lii la rek mën naay góorgóorlu ba ñoom ñu gis seen bopp ci man parce que ñoom ñëpp ay jaamu Cheikh Abdoulaye Wilane lañ ma leen di xoolee Cheikh Abdou Barama ku ma ci dajeel jox la cër boobu ki la yëg nag wa yëgee wa yëgee goon Baye Wilane ne wa yëgaa goon wa yëgaa goon comme que nag dama leen yëg rek bañ xam ne yëg leen su leen wooyee danañ sa war a te bu ma ngi ñaan yalla bes bëgg nit ñi ñaanal ma diir bu gàtt képp kuy wacc dama lay joxale enveloppe mu suma xol ma ngi koy togg nak ma ngi yow wax ne maa ngi koy togg dama bëgg dir bu gàtt ku ndekki ba paré am ñuma organiser ñu togg ci suuf di joxe enveloppe kuy ñibi ñu jox la enveloppe bo xamé boko ubé di nga am di nga am essence bo ñibi lolu ma ngi koy dund ci suma xol bi té ñaan nako ko bàyyi ñes dina ko déwén may ma ku yéeg bu wàccee ma jox enveloppe loolu laa bëgg ma am sama question bo waaw gis naa ne tey ak euh, dara ji la yàlla may. waaw Euh, ñu gis ne saa yu ñoom saa yu ñëwee da ngay wàccal sa bopp au lieu que sax ñi organiser nga bàyyi la ñoom ñu séddale seen bopp mais da ngay yàkkamte ba yow yaay séddale sa bopp li nga xam mooy lii bàyyi dañ ko ko laajoon mu ne nag boo buggee mu bàyyi meew mi da ngay dem di ko jël doom yi tokk ci wëtam ñi ay doomi Cheikh ma bëgg Cheikh Abdou Barama yi te ma bu doom yi te xitmaal doomam bi dana bàyyi meew mi mi wàcc moo ñuy ñëw damay jàpp ne sang Cheikh Abdou Barama yi ñu ngi ñëw taalibe Cheikh Abdou Barama yaa ngi ñëw jaami Cheikh Abdou Barama yaa ngi ñëw naa la léegi damaa bëgg a nekk jaamu jaami Cheikh Abdou Barhama yi loolu laa bëgg nekk ci ñoom dama bëgg di leen xidmaal guddi ak bëccëg ba ñoom ñu gërëm ñoom ñoo joti Cheikh Abdoulaye Wilane ñu yóbbu ma fa moo tax heure bu ñëwee ma sol tenue de travail liggéeykat du wàcc moo tax heure bu ñëwee fekk ma ci tenue bi du ma solu ay sanceeg yooyu du ko tal naa leen xidmaal boo xam ne kontaan nañ parce que bu ma leen bu leen neexoon su ma leen nekkaa leen du ñëw de ñàkkuñ luñ jëndee ñu luñ jënd luñ jëndee béy de ñàkkuñ luñ jëndee xar de te ñu ngi ànd ak seen i taalibe waaye ñoom ñëpp dañuy woon ndékki seen gannaaw woon seen taalibe yee ñu ndékki parce que bàyyi nañ fa ndékki waaye nag ñu ñu telaangaal ma ñëw kon ñooñu bu ñëwee war naa leen woon de dama leen di xitmaal di leen liggéeyal bañ gis seen bopp ci man parce que nag ñoo ma gën waxuma waxi caaxaan de taalibe cheikh abdou barama lim liggéey bo don ko man xawmako té man worut man ndax mom la kon dama len bëgg di xidmaat rek ba xëy lee waaw alhamdulilah question bi bi ci top moy décoration bi nga xamné ne bi décoré na ko ci bindé ki ci biir mbolo wa xam nga lool mom mbégteeb sëriñ bi la sëriñ bi daf di ko xamné dafa doon bayam waris la fay am da fay am waris ni dana nek khalifa te dana nek waris moy mo tok place papaam ndax la am newon mu nga ci bu ca newut rek du waris bu ne ka ca la bàyyam neew nag kooka mooy waaris gis nañ nag loolu ci moom xalifa ab sëriñ bi la waaye gis nañ ñu yu sëriñ bi doon defal taalibe yi mu koy def kon dafa aw ci yoonu bàyyam loolu ko daan def ñu dem xare ñëw mu yëkkati benn tiset bu rafet ne ko ndek góorgóorlu kim góorgóorlu la ñuy roy def gëm ñu ko defal nag loolu dañ ciy sant yàlla parce que taalibe dina ba xëy dee amul cadeau ci sëriñam ci bàyyam la njëkk li am ci ay yére bàyyam kenn xamul lu ne papaam defal mom mi ci bopam yaakaar naa si ne ñetti complète yo xamne jox na ma ak kala go xamne jox na ma te barki dembo ñaan ñom dañu xol xidma rek bo xidmaa ñu gëreem la ñu jox la kon haqi ma gënaaw bay wax ci heure bobu moma gëna ñu jox ma ay milliards day barke ma gis way ma gis ñaar ño xamne mënuñ def do damay feebar may am stress motax lu lay dënk nit ñi nañ nekk ben nañ hando ci bay wilaan moy sang bi moy serigne buntu bi di cheikh bay awol ñu ne neen ñu doon di waxante jam di defante jam kenn bu mu xamee diw fii la dëkk tukulóoroo jaaxanke yoo bambara yoo séeréeroo bu mu fi am xam ngeen li am bàyyi wilaan rek loolu daal moom la am lu may wax gars yi ñu am mbégte bu baax mu ngi jeexale nag ci yow di la ñaanal yàlla foo bëgg a dem yàlla na nga fa àgg ñu ngi ñaan yàlla Che TV yàlla na gën a daj àdduna bi diir bu gàtt booy ñëw oto yi dar la nga xool ma ma xool la nga ne ma waxoon nga ma ko ñu bind ci oto yi Cheikh TV may départ lépp départ doom lépp luy ndox lépp luy boisson lépp luy fruit Cheikh TV yëpp ko ci ay oto yi Cheikh TV indil ma ko fi bii maa la koy ñaan Cheikh yal na boo dam yaa may taxaw yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla siiwal siiw ke faatihatul kitaab yal na ko yàlla def ci sa ci sa chaîne ni faatiha siiwee ni faatiha barke yal na ko yàlla def ci chaîne bi heure bu ne yaa may xidmaat heure bu ne yaa may liggéeyal maa ngi ñaan yàlla mu xëy nekk sa xaat yal na jamono nekk sa taalibe yal na jamono sëggal la nangul la ba loo ci bëgg def nga def ko ci ci barke Baay Yàlla bi barke Seexu Tijaan barke Mawlaaya Cheikh Abdou Barama allahumma salli ala sayyidina La ilaha illallah Baay Ñas La

Yes, خملي khamle yalla bay la la la في la bay yes, fi maram faidu bay la اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الخاتم والخاتم صباح الناس صراط بالهدى إلى صراطك المستقيم وعلى